téléspectateurs yi teewlu Xass TV ñu ngi leen di nuyu bu baax leen jaajëfal ci saxoo gi ngeen di saxoo di ànd ak ñun ci suñ jataay yu mel ni dellusiwaat nan eh, ci seen jataay bi ñu leen jagleel eh, di émission boo xam ne si ñu ngi ciy ànd ak yéen alxamis bu jot di cent pour cent preuve eh, ñu koy amal alxamis bu jot fii ci Xass TV ñu koy seq ak ki nga xam ne si mooy Serigne Ablaye Diop Xass tey mooy ñetteelu numéro bi yamook euh, fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet ci atum 2020 ñu dikk ak yéen euh, ci ñetteelu numéro bi doon émission boo xam ne si mbokk yi dañ koy xaar comme ni ñu koy waxee rek ci émission yële passé tey ñu siqaat ak moom jataay kii di Serigne Abdoulaye Diop xaas dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog suñu mbokku téléspectateurs yu Khass TV ñu doog a dugg ci waxtaan bi Serigne bi ñu ngi lay nuyu. seex euh, di santaat yàlla di julli ci yonent bi. di sant yàlla bu baax ci bam ñu may fekkee ñu fekkee waat cent pour cent preuve émission bi tey di leen dalalaat fii ci daara ji di leen wax bismillah euh, noonu la ñuy profité rek di nuyu ñu nekk ci diaspora bi ñi ñuy teewlu ñu ngi seetaan ñëpp parce que ñi dañuy euh, xaar émission bi alxamis bu jot bu duggul sax ñuy woote di laaj émission bi tey lan moo tax duggul kon mu mel ne daal euh, ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax sëriñ bi tey ñi ngi dikkaat euh, ci émission bi 100 pour 100 preuve comme ni ko waxee rek ñëpp di ko xaar euh, ni ñu koy defee nag euh, saa su ne ak suñu mbokku téléspectateur di ko ànd ak ñoom ci émission bi mooy bala ñoo dugg ci waxtaan bi rek dañ leen di digtal benn vidéo boo xam ne si sëriñ Ablaye Diop xaas faj na ko ci genn tawat yi nga xam ne si mi ngi lëmbee jamono ji Euh, tout le temps ñu ci ànd ak euh, ñi nga xam ne si ñooy téléspectateurs yi tey nag euh, li ñu leen di proposé ñaari vidéo la bi ci njëkk ci problème mu tànk la nit koo xam ne si tànk bi dafa am problème am ay góom yu méttee méttee métti xam naa da ngeen ko gis ci image yi ak kenn koo xam ne si soxna la soo xam ne si jinne moo ko dugg jaar ko ci dënn bi ba am ay gàllankoor yoo xam ne si daal amoon na ko ci wàllum wér-gu-yaram ba bimu jëflante ak yow nga faj ko kon sëriñ bi dañuy ànd ak mbokki téléspectateurs yi rek ñu seetaan vidéo bi ñu dellu siwaat ci plateau bi. dugg ko. sonal ko wét. Mm-hmm. nekk ci gën diggu ginnaawam bi. Mm-hmm. dënn bi. Mm-hmm. man maa la léegi dafa commencé woo fu bëgg bën la gis yii. sëñ bi euh, ñoo ko gisandoo ji euh, seetaan nan video bi ñaari vidéo yi yi nga xam ne si moom nga ñu indil tey ci cent pour cent preuve mm-hmm. euh, bi ci njëkk di problème mu tànk tànk yi bari ci jamono ji lool lool lool da ngay gis nit koo xam ne si day dox ba mu yàgg mu xëy xëy tànkam neewi du xam lan la ñii ci ay problème mu jabet la leen di dikkeeg yu xeet yu doy waar mm-hmm. ndax mën nga ñëw dikkal kii lu ko dal. mooy li bari lii bari ci jamono ji li muy dale xam nga. mooy problème bu tànk damay jàpp ni léegi actuellement toll nañ période boo xam ni daanaka ñëpp la sonal yematul sax ci léegi amatul ma xam bu ñëkk dañ naan diw mag la tànk yi neexatul mais léegi da nga gis xale bu ndaw ndaw ndaw tànk yi sonal ko kon tànk aajeetul ca ndax la mag ña daan def di mucc ñun dañ ko bàyyi problème tànk yi li ci ëpp actuellement da ngay xool jabet bi euh, mës naa ko wax sax ne man d'accorduma ci dagg tànk da ngay imaginer kii ni dañoo dagg tànkam tey boo ko laajoon dama ci masa laaj nit mu ni bi mu demee bay jub duus bi dugg sangu génn ci la daanu bi mu daanoo ñu ne jabet bi bi moo yëg bi jabet bi yéegee nee na bi mu tëddee mu génn ay xaj di ko dàq di ko matt bi ñu demee ñu ñun ko dangay dagg dañuy dagg tànk bi nee bi ñu ko daggee dañoo gis tànk bi du mu ñuulee ba ki ko dagg moom loolu da koo jaaxal xam kon loolu nekkatul jabet kese c'est-à-dire foog ñu xam ni bëri na feebar yi xew actuellement mooy nañ ko doon waxee euh, dafay rax Euh, boo xoolee li kii nii góomam bi luñ ko sànni woon la loolu mooy corte léegi exemple li tax ñu wane ko rek dafa bari ñii ñuy dal te bu dee ci tubaab bi dañ naan dañu dagg sa tànk parce que ñoom mënuñoo gis corte bi xam nga liy xel li sax di ci génn tubaab li ñu mën a def mooy dagg tànk rek parce que boo xoolee nee na fu ci nekk bëtt nañ ko fa pour xool feebar bi mënuñu koo gis ba finalement bi ñu noree dagg tànk bi ci la ñëwoon. woon ay bët. parce que ñoom ñoo ko doon bën di xool feebar bi fan la féete léegi boo gisee bu ñu teyee nag bëttalee ba xam ne nag ñoom mënatuñ ci dara dagg tànk mooy solution te nit boo daggee tànk yàq gaa dina am moo tax dafa mujj obligé bi mu ñëwee ñu xool xam ni korte lañ ko sànni woon korte nag mooy loo mas naa ko wax dama ni korte toll na période boo xam ni xeet ba la kort moo gën a gaaw ca diddi ba. ki la kort waaw bu dee soose moo la ko sànni ñoom seen xeet ñoo koy dindi bu dee joolaa ñoom seen xeet boo ci gën a gaaw bu dee séeréer ndax dafa bëri façon te wutewul daanaka nag gunóor moo ko mais dafa bëri façon te wutewul moom kort lañ ko sànni wa ilaa mhm. nga jog gi liggéey jog gi liggéey nag ñaar dina ci am bii yaa ko moom wala moomoo ko liggéey bi nga jog gi te moom ko moom nit euh, bu la dalee rek da nga yëg ni dal na la mhm. léegi liggéey bu bon bi nga xam ni moomoo ko nag joggi ko mën na la def problème mu tànk boobu ndax mën na jàpp sa tànk parce que automatiquement boo ko joggee rek day téye sa tànk léegi yow mi ko joggi mu sa tànk kon borom bu ko joggi woon fu mu jëm cest te bëri na léegi liggéey yoo xam ni bopp koñ yi suufu ron oto yi mhm. ci biir kër yi ci biir léegi maanaam toll na jamono foo xam ni kenn mënatul xam exact fan la nit di muccee mhm. euh, léegi nag kon pour nit mucc jamono ji gis nga ku ci bàyyi sa bopp rek cheikh yaa ngi ci erreur parce que dañoo toll période boo xam ne nit ñi xewatuñ dara nit ñi ragalatuñu dara ndax ñun ñii sëriñ dèjà di gis lu nekk di dégg lu nekk dañ ciy dégg dañuy gis dañuy euh, dégg diw liggéeyal ma diw da nga gis ku nekk ci ay activité am léppam di dox mu am wér yaram xëy léppam taxaw wératul teg ca te pourtant kooku ko def de lu ñàkk fayda la dem jox sëriñ mu def ko. sëriñ ba ko def it sóoraalewul ni ki ma koy def jaamu yàlla la sóoraalewul ni ëllëg yàlla dina ma laaj li déedéet moom gis na ni yor na xam-xamam rek war naa war na wan kii ni ko comme lii nga bëgg dinaa la ko defar ak lam ko cay jox mu lekk ko te loolu man damay wax ni sëriñ bu ko lekk sax du rees imagine ki yëkkati alal jox la ni la liggéeyal ma nit ba mu ba mu ba mu ba mu sonn te man jàpp naa ne sëriñ bu mën a liggéey nit mën a def li ngay def man nga ko defal sa bopp loo bëgg yàlla defal la ko te doo liggéey nit doo def musiba mhm. loolu laa jàpp pour nit ñi gën cee taxaw ci wàllu tànk yi daal mhm. jabet moo ciy ëpp wa ilaa nga joggi liggéey mhm. wa ilaa ngelaw bu dee ngelaw nag mooy tànk bi day ruux mel ni dañu koy xëcc yàgg naa ko di wax surtout guddi da ngay imaginer léegi balu mu balu ñu koy xëcc rek tàkkusaan jëm kaw wala suuf sedd da ngay gis kooku tànk yi da ngay bës buy metti ci biir ba mara day tali loolu ngelaw moo koy def bu dee liggéey nag tànk ba day diis di néewi da nga wax tànk bi day diis di néew bu dee korte nag waaw bu dee korte nag lañ la sànni gunóor ba ca dugg mooy génne sax yooyu. waaw léegi euh, bu njëkk comme ni nga ko waxee. Hmm. Euh, ci ci mag ñi ci lañ doon seetlu ni si ñooy am problème tànk. Hmm. wala jigéen ñu wéru. comme si dafa am doom jëlee ca tànk yu métti. dëgg la waaye léegi dañu gis xale yu ndaw yoo xam ne si ay 30 ans 40 ans. Hmm. doon ay xale toll seen digg doole. dëgg la dañuy def duñ wax ni lii moo ma ko def. dañuy rek tànk bi bañ moom moo xam ci sënu bi la. moo xam ci suuf la. Mhm. Euh, kon tey na ko def liggéey mën waaw ngelaw mën na ko def ak tibb sa tànk xam nga bu ñu tibbee sa tànk. Mhm. dem jël ko. des fois bëri ñoo xam ne boo leen yëkkatee dañuy mel ni néew da nga gis tànk bi dara du ci nekk te boo yëkkatee rek mu daanuwaat kooku dañoo tibb tànkam dem def ko ci ay armel am na liggéey bu ñu koy def est-ce que néew mën naa jóg fi mu tëdd. noonu ngay mel fu ñu la yëkkatee da ngay daanuwaat boo ilaa it sa yaram doo ci sentir dara Cheikh Rawa bari na ponkal moo gis muy dox te yaramam sentir ci dara hmm? boo ko doon dompet sax du ko yëg bëri na liggéey yoo xam ne actuellement ni muy soloo ci nit ki maara day taali te nit ki néewal néewal man damay wax ne jamono jii ëpp na nit di néewal xanaa xamoo koo gis mu néewal mu jëm fa mu jëm baaxul néewal mooy yàcc la sëriñ Cheikh doon wax waaw doo julli doo jàpp doo def dara est bàyyi maanaam bàyyeeku complètement ba nga xam ne yow euh, da ngaa mel ni bàyyi ma rek jéemoo dara yow daal dem fee dugg fii sëñ bi nee nañ def lu la neex wax lu la neex dem fu la neex am lu la neex amul fenn parce que dégg nga olof yi waaw foog nit ñi delluwaat tuuti pour xam ni yàlla mii ñu wàccee indiwuñ ci àdduna pour caaxaan c'est-à-dire ci gis koo xam ni euh, pour jinne mën koo sonal di ko def lu ko neex wallahi maanaam na muy sangoo set sell ba jinne du ko mën a dugg mu man di jàpp sax xamu ko kooku nag yaram ba day takk sobe ba nga xam ni tout le temps justement jinne yu bon yëpp dañuy dem uti ko léegi kooku pour mu mucc problème la léegi nag kooku la jinne di solo ba nga xam ne tey dèjà bu tëddoon guddi nii ci lalam bët set mu bëgg a jug dafay mel ni nee naa la adduna buñ ko yenn yaram bi day diis day onk rek raxa bëri na problème guddi gi dañu onk ba bët set parce que du ñu biir yëpp day metti kooku nag jàppal ni moom la rab solo ba fees dell ci yaramam wala moom la jinne solo ba fees dell ci yaramam rawatina bu dee comme euh, rab bi la jàpp mooy ninki nànk xam nga ninki nànk mooy lan ñi damaa nànk waaw ninki nànk léegi nag waaw ninki nànk dama lay sax nettali histoire am mhm. ninki nànk rab la woon xam ni maanaam mu ngi sokkee ko maanaam euh, mag ñi boo gisee lépp lu ñu tere woon mbir la parce dafa dugg ci duus bi fekk ñu teg fa layu xam nga layu def fa dugub teg fa këriñ mhm. léegi moom bi mu ñëwee di tuur ndox mu tuur ndox laal dugub bi fekk boobu mu ngi ëmb mhm. léegi bi mu juree doom mu nekk ñaari seex kenn ki nekk jëmmi nit bu normal kenn ki nag nekk xaaj boo xam ne dafa rax dinki nànka mhm. maanaam jur rab ci gàttal parce que rab ci duus bi la ñu nekk waxtu yooyu mooy rab yi dañuy échangé doom maanaam mu ngi mel ne rab bi échangé doomam dugal doomam moom léegi bi mu juddoo mhm. fekk mu wax lii yaay ji ni ko moom xam na ni du mën a nekk ak nit ñi léegi nañ ko beral néegam spécial waaye nag mhm. néeg bi ngeen ma beral yow ak sama sama sama sama sama cheikh bi rek laa may ñu ñëw dugg ci néeg bi yaa ji nangul ko ko bi mu ñëwee dugg comme moom lu mu gën di màgg tey bu nekkoon fii bu yuuxu woon da nga gis bâtiment bi commencé fet ndax bi ko yàlla di may moom ni nga fu mu xotti jaal bâtiment yëpp day egg ci suuf la ñuy jëm moom ni nga nanga bu xotti woon suuf si yëpp yëpp dañuy daje bi mu commencé di màgg tante ji gis ni néeg baa ngi commencé di fet mu ne kon lii te day gis heure bu añ jotee ñu ibbi bool bi dugal ko tëj mu ni day dem xooli la fa nekk parce que ba mu demee riir ubbi bunt bi ci la xool muy tànte ji ci la yuuxu bi mu yuuxu ci la bâtiment bi toj mu riir uti géej bi seex bi déggee yuuxu bi mu xam ne seex bala mu daw toppi ko ba mu dugg ci géej gi ci la ñëw taxaw mun ko foo jëm mun ko baal ma dem waaye daf ni seex bi lenn laa lay waatal sama benn sët du dee ci ndox moom xam nga moo sëtam mooy ñan cubaloo cubaloo yi moo waral tey bu ñu ñëwee ci sa ci sa ci sa sa tudd dañuy fekk doom ja taxaw ñu ne la jox ñu temps boo beñee suñu yuuxoo rek doom ji day faatu te ci cubalo cubalo yi tey boo leen toppoon ci ndox da leen di tam ndax dañ mën nañ dem ba tollu fee xam ndox mi fi mu leen yem ci ndigg duñ fa jóg piir yi laax de fekk da ngay jàpp ni lu ne la fekk seen maama ne ci biir ndox waaw déet mu ci biir ndox mi aussi dégg wax bi parce que ninki tànk rab la comme rab yi léegi ninki tànk boobu rab la boo xam ne bu la duggee ni nga koy xamee mooy ki nga xam ni buy dox day sax tànki du sax yaram parce que doole jëm àndal la yàgg naa ko wax ma ni rab bi nga xam ni kii xale bi nga xam ne day dugg muy ree di ciifatu kooku rabam mooy mami wota xam nga mami mooy xaaju jën xaaju nit kooku mooy rab boobu c'est-à-dire xaaju nit mooy mami wota maanaam bu la duggee waa ci géej lay ne sëriñ si si ñooñu lañu ñu takk parce que bu ñuy génn dañu yor jëmmi nit léegi ki nga xam ne nag bu daanoo day génnee ndox di fudd kooku rabam jaan la moo tax bu daanoo ki nga xam ne bu daanoo day génn di buusu buusu xam kooku rabam la maanaam ki nga xam ne nag bu daanoo day yuuxu foo toll di dégg yuuxoo mi kooku rabam luu la xam nga lu lu mooy lu rab la boo xam ne ci àll bi lay nekk ah. maanaam moo daq yuuxu ci rab yi moom bu yuuxoo mu maradi tal bu yuuxoo fii day mel sa noppi lañu ko kooku rab du maanaam xeetu rab yi daa bëree <laughs> ak benn baaxu ci benn baaxu ci euh, xam nga rab saay-saay na saay-saay goom toujours day bëgg bu la jàppee automatiquement ñi nga nekkal ñëpp xam ne jàpp na la day bëgg bu la téyee automatiquement ñi nga nekkal ñëpp xam ne téye na la moom rab pexeem nekkul euh, xam nga koo xam ni bu nekkoon fii automatiquement bu ñu naanee lawal day di xaar deuxième bi dañuy bëgg a woon ni moom mu ngi ci biir kër gi léegi lu tax ñu naan lawal fàtte ko loolu mooy rab xam nga léegi boo naanee lawal mm-hmm. léegi day wax ni kii lan moo tax léegi mu naan lawal fàtte ñu bay jëm ci deuxième mm-hmm. waaw mooy ki nga xam ne sa doom day judd day day day da koy solal yére mu dem mu dem di jàngi wàcc ci suuf daanu parce que ba nga koy sang mu ngi nekk ak moom gisoo ko ba nga koy solee mu ngi nekk ak moom gisoo ko day jekk jékki mu ni waaw léegi pourquoi kii mu ngi def lii boobu ba léegi te deful lii léegi de moo tax da koy bëgg a daaneel pour nga xam ni moom mu ngi ci jëm bu demee école ba di jàng ba mu neex ko mu jékki-jékki daaneel ñu jël indi def ko mu jékki-jékki dëgër bopp ko du ko dégg wax jàkk mu jékki-jékki tàng xol ba mara de Italie du bëgg a wax ak kenn du maanaam àdduna euh, toll na foo xam ni delluwaat tëjuwaat xoolaat jot na période bi

da ci gis jinne day feeñoo nu nekk day day day day génn nit kii da koy faj ci nit ki mu génn dem jëliwaat jëmmi nit pour ñëw xool yow fan ko teg loolu ba faj ko léegi imagineel kooku day ñëw rek toog jàkkaarloog yow yëkkati xaalis bu bees tàkk jox la loo ko laajoon ci alal mën na la koo jox ngir bëgg laa jàpp eh, li ma ci dàkk doo xam nu mu toll mais automatiquement ñoom am nañ xeet goo xam ni yàlla daf leen koo defal même boo gisagul seen jëmm di nga xam ne ñu ngi fii mooy comme xeetu new. new li jinne xeetam comme new. ñi nga new ni muy xeeñ. waaw moom yëg moom xeetam loolu la mel. Hmm? waaw exemple ah? exemple <laughs> euh, te yow mën ñoo xam yàgg naa koy wax xam nga ñoom bu ñu jëlee jëmmi nit. Hmm. nee naa la mën ngeen a jàkkaarloo di xoolante mais ni nga ko mën a xamee ñoom seen i bët toujours booy xoolante xool bi day xoolante bi du maanaam ñoom fu ñu xoolee lu yàgg rek dañuy sëggaat. ño déedéet parce que bu ñu fixee neenaa la seen péru bët bi day tourné te bu tourné rek di nga gis safara moo tax dañuy obligé bu ñuy génn dañuy bàyyi ba jant bi génn ñu profité di génnaale parce que ñu bëgg a génn ci ker parce que automatiquement am nañ loo xam ni bu dee ci ker da ngay xam ni lii du nit. Euh, euh, si tey yu bëree bëri dañ koy dañ koy dañ na tey boo daje woon na waykat boo xam ne du ma tudd turam yu bëri dañ koy jiñ naan jinne la dajeel ñi naan fii daxaaga ah. lu nañu koy wax léegi ndax jinne moom mën nga dajeeg moom rek mu may la alal hmm, man nag xaw man xaw ma waykat waaye xaw na xaw na ah, mu ngi ci réew xam man ko xam te du ma ko xam waaw xaw ma ko déet bu ko tudd na te déet xaw ma ko xaw nga xam nga xam nga uh-huh. Sénégal uh-huh. dafa nekk dëkk bu doy waar Cheikh uh-huh. Sénégal dëkk la boo xam ni dangay ngay gis des fois dama ko daan wax. damay toog tey ci tele ma ni sama bayre bii ku ko laal lépp loo bëgg nga am ko te man ma ko wax aw ma bayre kon est-ce que ki koy jënd war na koo gëm. sëriñ bi la nii. am na jinne boo xam ne boo dajeeg moom mu jox la alal. xam nga sëriñ la ko wax tey nga gis kooku tey moom lu mu lekk da koy të. waaye war ngaa topp ci kooku pour mu jox la lool xool sëriñ si koy wax li xool sëriñ si luxus xool le da sëriñ bi luxus sa yére yëpp ay xooteeku bu paree day dugg ci kaar yi dem te pa mën laa luxusal fii nga gis léegi ay million waaw loolu bu doon dëgg du ko laal c'est-à-dire ñun ñoo eewul Sénégal problème boobu lañu ñu am bu njëkk mag ñi dañ ko daan def am na ba tey mais sacrifice dañ koy wax jinne pour mu defal la dañ koy defal loolu da ngay ñëw mu ni la te jinne yi sax léegi bu ñu lay defal sacrifice mooy ñoom nekkul ñoom ñooy opté yow yaay opté ne leen diw laa leen di jox déedéet dañ lay jox seetu wala seetu bi comme téléphone ji nga téléphone ngay seetee say foto di def nii muy jàll noonu la lay def ba gis ni kii nga gën a bëgg soxol mën la kii laa lay laaj mën doon sax xarit wala mën a doon sax non lu la jige sa deret lay jël ah, mais ki nga gën a bëgg lay doon hmm? boo ko boo léegi bu ngeen déggoo puso boobu nga gis muy jël puso bu jamee ci seetu bi dangay ci seetu bi day am day takk deret kooku faatu na est-ce nga ma mm-hmm. wa ilaa mu ni la jox ma sa doom ma weccee mooy ñi nga xam ni dañuy mujj jël doom jooju tëj ko fee du génnati xam nga loolu du génn parce que doom ji maanaam cër yu bëri day dem parce que jinne jee weccoog doomam léegi doomam mu ngi ci jinne yi bëri na ko def actuellement bari na kër yoo xam ni dama ko doon faral di wax Euh, bariwul fii mais bëri na sax ci boo génnee kër yoo xam ni néegu biir kilifa ga beneen néeg ba ca topp fa la loolu di nekk kenn du fa dugg. Hmm? ñaar nga joxe sa aaw sa taaw sa baaraam sa nangam sa nangam sa nangam yooyu bëri na yu ko jinne daan jëflante. mais jinne moom bu la ci kenn nax pour gis ko nii rek mu jox la alal. Hmm. ay wax la rek jinne pour mu defal la danga koy defal. kon daal xoolal hmm. jinne pour mu defal la. da koy defal man sëñ Ablaye maa la wax lii. ah joxe sa taw baax na. joxe sa doom baax na. waaw ah, loolu la. macha allah ñu fàttali mbokk yi ñu doog a dab ci waxtaan bi ñu ngi ànd ak euh, seen émission 100 pour 100 pro ak ki nga xam ne si mooy Serigne Abdoulaye Diop xaas ci site mag bi di xaas TV ngeen koy am euh, alxames euh, bu jot tey ñu di ko ngeen seen troisième numéro li nga xam ne si mooy 100 pour cent preuve bi sëñ Ablaye. Hmm. dañuy delluwaat ginnaaw tuuti tuuti rek. waaw ma dikk ci tànk bi. Mhm. Euh, si bi mhm. mais bari na Cheikh loolu loolu dafa bari. Mhm. xam nga hôpital doo leen ci balaame. Euh, ndax li tax doo leen ci balaame mooy. xam nga ñun li ñuy gis xam ko hôpital mënu koy gis. hôpital mënta xam tànk bii war nañ koo dagg parce que ñoom jàpp nañ tànk bi dëkk di métti xool nañ xamuñu la ca biir dagg rek mooy solution baaraam bu tëb di métti xool nañ xamuñu lan mooy ca biir dagg rek mooy solution pour wax la hôpital ñoom même bu ñu dee bëgg di jéem duñ man parce que euh, am na loo xam ni mbirum biir la yàgg naa ko wax dama doon wax naan ñun fi ñu ñoom fi ñu tëlee ñun ñun traditionnel foofu la ñu tàmbalee hôpital fi mu tëlee ñun foofu lañ tàmbalee mos naa ko ci benn télé ma ni leen tey boo xoolee mosoo dégg ñu ni la médecin day faj cat docteur day faj cat loolu moom mosoo ko dégg docteur day faj liggéey mosoo ko dégg mhm. léegi liggéey boobu nag boo gëmee ni moom li tax mu danger mooy liggéey boobu mën na nekk ci tànk liggéey boobu mën na nekk ci biir liggéey boobu mën na nekk ci xol mën na nekk ci bopp léegi est-ce euh, xam ne yi lëkkaloo tey bu ñu amee situation bu mel noonu tànk bu grave noonu ñu eh, ak sëriñ si sax. xam nga xam nga Sénégal am na ay sëriñ. waaw. am na sëriñ soo xam ne man mos naa wax sama benn émission de ma ne des fois mën nga téye micro te mën naa téye micro tey wax man tey sama xam-xam li ma yàlla may tey Cheikh fu ma toog ñeme naa ko wax mm-hmm. li ma ci yàlla defal fu ma toog ñeme naa ko wax li ma ci yàlla may fu ma toog mën naa ko wane. ndax mu ngi ci man waaye jàppal ni nag des fois nga romb euh, dama mos naa ko wax dugg ci atelier garage fekk fa mécanicien ba lay dépanner sa oto boo moytuwul la ma xam la mu xam yow ma toog sax di wax xamoo foofu laay waxee ci mbiru xam-xam parce que dafa yaatu mais lu ma ci mën a wax mooy xam nga ñoom am nañu ci yeewu parce que man mii di wax ak yow bëri naa lu ma ciy jëflanteel ci xeet woowu xam na ko xeet boobu bari na na bari na ñoo xam ne tey pëj na bu ñuy jël ambulance dafa def malade ba dañ koy booleeg docteur boo xam ne moo koy brasser li muy nooyee kon xam nga ni kon de xam nga yow nooyi booy xëcc muy diis gann gann gann tëwoo wàcc nga branché ay raccord ak yëpp nooyi bi takk nga a xam na ci biir. souvent bu même bi bi seetaan sànq. moom dafa ne problème mu dënn. parce que xam nga dënn bi la doon jàmbat. mais avant dënn bi li koy jàpp fii ci digg ginnaaw gi la ko doon jaar muy tàng léegi digg ginnaaw googu mu koy jaar muy tàng jàppal ni la mu fay dugal ngelaw la léegi ngelaw boobu mooy wàcce ci dënn bi bu wàccee ci dënn bi nag pour mu nooyi day diis boo demee hôpital lu ñu wax mën nañ ni la sa dënn bi dafa def lii ak noonu la ngelaw mën a ëffee sa biir nag ba mu wow kong ñu la da ngaa cancer noonu la mën a ëffee sa tànk nag ba mu dis gan xam nga jabet loolu la day ëf tànk yi ba tey sidit yi su ko defee dootul fonctionner tànk bi wow kong ñu ne ko dagg rek fekk xoolal mu ngi mel ni ngelaw imaginel exemple tey boo jëloon mbuus mhm. mbuus mi kii nga fas dëgër gis nga ni muy gonflé noonu. Mhm. pourtant lu ko téye. justement tànk bi effectivement des fois noonu lay def biir bi des fois noonu lay def xol bi des fois noon lay def parce que noonu la mën a jàpp xol bi di def nii. léegi nag nga ne xol bi moo am fekk araam noonu la mënee jàpp tànk yi nga ne rhumatisme fekk araam c'est-à-dire foog gars yi gën cee gën cee nit ñi nag yeewu nañ mhm. ndax léegi damay wax ni mhm. daanaka kër sëriñ see gën a fees hôpital yi ah, parce que xam nga man tey may man de ma part personnel Cheikh damay feebar woo médecin mu ñëw perviser ma may jóg ni cocc man dama koy def lu bëri de fu ma dara dëkkalee walla ma coono sonal ma wala ma yëg sama yaram loo xam ne mar ditaali toog nii mu consulter ma ni ma lii moo la dal sampal ma butéel jox bindal ma ordonnance ma dem jënd garab yi naan ko wér est-ce que dégg nga parce que xam naa ni boobu ñoom ñoo faj dafay am du waxuma feebar yëpp la ñun di faj déedéet parce que ñoom it du feebar yëpp lañ faj bu ñu jàppee noonu rek dañu noppalu. Mhm. mais bu ñu bëggee nii par exemple lee baax li baaxul du dem. Mhm. parce que mag ñi daan dañu fajute boobu suñu docteur. demal dëkk àll yi nit danaa la sama liy métti rek nga gis mag mu jël jaaseem dugg ci àll ba xas la muy xas ñëw jox la nga naan wér. Mhm. nga ni sama bopp bi day metti nga gis mag mu jël loxo ba teg ca bopp ba mocc dootoo ko jàmbat wala la ñu xeeb loolu léegi sëriñ amul ki jaan mat boo demee hôpital lu ñuy def dañu xotti tànk bi waaw bu dee sëriñ loolu du ko lugg waaw bu daa bu ko luggee automatiquement loolu day bàyyi moo tax may wax ni ku ni sëriñ amul jaan da laa mattul euh, beneen bi sànq yaa ngi doon wax ci mbirum kaaraange doon eh. wax ci ay sànni porte yi nga xam ne si mooy am ci ci ci jamono ji léegi ak liggéeyante bi nga xam ne si mi ngi am ci jamono ji nit ñi di joggi ay liggéey mm-hmm. doon ay ñaawteef yoo xam si yéeme na mm-hmm. sànq yaa ngi junj nga ne kenn ku ci nekk war na cee jub ci sa bopp bala laa faagaagal. Mhm. Euh, sëñ Ablaye euh, yemoo rek ci mbirum rab beeg xeet yi mel noonu euh, am na ay jaaroog ñoom seen yoo xam ne si yaa koy joxe mu jëm ci mbirum kaaraange ndax mën nga koo laabire gars nga kaaraange. Mhm. man wax ni am sama bopp laa njëkkee. Cheikh cest bi ma féete rek laay taxaw di wax xam nga tey day am noo xam ne tey boo ko melul woon doo toog di ko nettali. Mhm. mooy li may wax rek man damay wax ni. ku ni dama lay ñaanal xool ko ca boppam ku la mën a ñaanal rek boppam doy na seede Cheikh xam nga kaaraage euh, mas naa wàcc exemple wax la lig Sénégal lu fi nekk ma mas a toog ba benn xaaju guddi ma wàcc fii ci suuf bi ma wàccee fii ci suuf gis ci suufu oto bi ci kiwu oto bi liggéey bu bañ fa liggéey boobu mën naa leen wan ngeen mën naa leen ko wan sax ngeen wane ko am na ci exemple pour wax la nit ñi sax loolu am na important di ngeen ko dugalaale parce liggéey bi yooyu jël nen def ci jël këriñ def ci jël dugub def ci jël xorom def ci jël suukar def ci jël ñetti paaka def ci xam nga lu dugub noo koy def. dugub day avant lekk nooy def dugub. ci suuf ci ah. léegi noo pour nga dugg ci noo ko def da gas. da ci suuf. waaw pour lan la. toujours waaw toujours lu muy dagg day fekk mu dee lu ci ëpp. te loolu la. nen fu muy jóge ci ganaar lay jóge ganaar fu muy jóge ah, ah <laughs> xam dañoo nekk di waxtaan ah, ah. nga ma suñu waxtaan ci xam dañ koy toj parce que boo déggul olof nag danga naa ma dégguma olof dégg nga xam nga ganaar am na nañu machine yi di di di di kii waaw mooy mooy pondeuse bu bureel bee yaayam moo koy jël boof ko mais diggante bi mu koy boof da koy nëbb day nëbb nen ya mhm. ba mu mat mu toj muy jóo day nekk cuuc loolu ganaar waaw léegi exemple yi ma lay jox mooy mhm. dafa def léegi ci biir liggéey bi ñaar mhm. man comme sama oto la oto bi na def soog way laa mën naa ñàkk sama bakkan hmm? dugub la ñuy saraxalee nit ñi justement léegi ci biir liggéey bi ñetti paaka yi da koo julle paaka bu ne da ko def koñ dafa la woon ni jour boobu boo génnoon côté boo jublu rek waaw exemple laa la lu nettali nii pourtant def na ko ci sama oto soog boobu am na waaye du man maa ko def hmm? déedéet soog lépp lu baa moom sax mu def ko moom ma ko def hmm? exemple boobu laa lay wax pour wax la jamono ji boo ne boo nee tekk tuuti rek baaxul gis nga même bu dee benn faatixa nga man boo xëyee na nga ko wax door a génn sa nekk wàkkirlu ci sa borom waaye li bon mooy kay xëy takk sa cravate fomp say dàll ba mu ñuul kukk sol rek ubbi sa caabi oto yaa soo ko seex deegu gaaw gi lan la mais imaginez jinne yi ni ñuy rey ni ñu sax léegi ci oto da jinne ji jékki-jékki sol ko ngelaw gi mu dóor te kilifa yi lañ gën a yëpp léegi incha kilifa yi kilifa yi pour wax la daal yàlla yàlla musal ñëpp te muccal leen. xam nga après après après dañ leen di kiyanteel par bu ci nekk ñu leen di kii kaaraange li tax mu am njariñ parce que dañ leen di tegal damay jël dara defar. Mm-hmm. jël nit jox léegi kooku ma jox moom mu dem xam nga nga gis li mu def kaaraange gi mu jël na ko mhm. léegi ki ko deful est-ce que dina ko ñemee après pour nit ñi gën a xam ni kaaraange lu am la ak lu amul mhm. mag ñi ba ci sa doom da daan juddu tey da daan tollu diggante di war a am doom nga defal ko fas wala nga jox ko ndox mi mu mucc ndox moom day laal liir ba est que dégg nga mhm. liir ba bu juddoo ñu am la ñu def takkal ko kooku dana ko dimbali ci diir bu muy dem ba ba muy nàmp di taxaw seytaane rab lu bon da koy da koy muslu da koy daw bu demee nag ba commencé dëgër nga am ngàll boo ko takkal ngàll boobu lay demal lay dem lay dem ba mu am fukki at ak juróom nga tikki ngàll boobu takkal ko la ca ndigg la loolu nag mooy continuer ak moom ba ba muy am soxna gis nga yooyu yu ama am important la mais ñun léegi dañ koo bàyyi. ndax léegi da gis koo xam ne danaan du ma takk téere sax parce que day nga ji koo xam ne daan du ma sangoo kii parce garab gi dafa xeeñ léegi nag garab gi dafa xeeñ te yow bu ñu la jàppoo indi lu ñu la sotti nga takk kon bala ñu laa sotti wala ñu lay jàppoo nga defal ko sa bopp imagine damay wax ni ba ba ngay man nga jàmbal sa bopp garab parce que boobu man nga mhm. léegi nga dem ba ñu lay jàmbal garab loolu la foog nit ñi gën a bàyyiwaat seen xel seex. kenn waaw waaw kenn waajalatu leen mais nit ñaa ngi gën a yeewu daal seex. Mm-hmm. Euh, defe naa baax na. waaw macha ñu tàggoo. Euh, am na solo. waaw euh, waxtaan bi neex xam naa mais. Mm-hmm. waxtu yi moo ñu utul boo xam ne si alxames waaw waaw ni par point rek. dëgg la dugg ci mbirum sëy yi booba fan yii koy dikk. waaw même même tey sax yaa ngi ma ciy sonal. waaw mais mbirum sëy yi. Mhm. xam nga dañ leen ciy junjul tuuti rek Cheikh. Mhm. bu njëkk mhm. bala nga daan takk sa soxna. nga daan dem cib sëriñ. mu seet. la soxna si baax na de waaye defal sarax bi. sarax boobu ngay dem def sëy bi ñëw dëgër. wala mu ni la ah sa soxna si am na àndandoo bu bon bu koy topp. ay génneel sarax sàngam àndandoo bi fànk. nga génne sarax bi mu la kii bu ko takk parce que du sa soxna nga bàyyi léegi nag ñun problème bi ñu am nekkatul loolu léegi imagineel jiitalatuñu dara lu dul suñuy bëgg-bëgg boo bëggee sax doo ko bëgg a seetlu ndax ko la découragé loolu kon kay conséquences ci biir yaa ko def sa bopp waaw mais imagine sarax bañ lay génne sarax dañ naan la amul lu mu mënul fànk ci àdduna mm-hmm. sarax bi day fànk rek defal sarax bii nga génne ko imagine li nekkoon musiba war a wuy si ci sëy bi yëpp day day day day toogee côté léegi nag yow boo génnewul sarax bi lii musiba tey ñëw yëpp sa kaw lay dal loolu erreur la pour wax la après yooyu yëpp dinañ koo tas côté par côté xajo ci moom émission spéciale la boo xam ni peut-être mën na jël ñaari émission parce que comme wax xam-xam la dañ koy tas pour nit ñi xam ni mhm. maanaam li ngay waxtaane xam-xam la te yaa ngi koy tas di leen gërëm mhm. di leen sant eh, di ñaan sunu borom defal leen jàmm eh, ak xéwal ñi ci bëgg ñaareel yàlla defal leen ko comme ñi di nuyu Kalidou ak sama waa ji di nuyu Ahmad Mbacke Lakram borom borom borom moom moom eh, borom respecté mesure yi moom moom dafa respecté mesure tout le temps moom kii baa ngi ci baket bi moom masque bi di ñaan Sénégal Cheikh yàlla def fi jàmm ak xéwal yàlla defal ñu sutura. moo moo mat a ñaan daal la Seydi Cheikh Ahmad Tidiane si almaxtum doon wax naan sutura rek a mat a kon yàlla ñu ko yàlla defal te defal leen ko euh, alhamdulilah jërëjëf Cheikh. jërë ngeen jëf euh, mu nekkoon seen émission bi ñu leen jagleel di 100 pour cent preuve ñu ci doon ànd ak euh, Serigne Abdoulaye Diop xaas ci seen sit bu mag bii di xaas TV noonu lañ koy defee rek saa su nekk alxames bu jot dana dikk ak yéen ci émission bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di gërëm sama caméraman. Kalidou di gërëm Killa moo nekkoon si beneen caméra bi da baax si Malick moom it di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokki internetu Khass TV yépp di leen jaajëfal jàmm ak jàmm ba beneen incha allah jër ngeen jëf.